لله الذي وسعنا برحمته الشاملة وبلغنا بمنة الأزمنة المباركة الفاضلة وبلغنا بمنه الأزمنة الفاضلة المباركة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عبده النبي الأمي ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا عباد الله tuubu ila allahi qabla an tamuutu wa baadiru bil acmaali saalihaati qabla an tus wa taahhabu li yawmi l-mashhad wa laa tufarritu fi janbi llaah faqad allamakum kitaabahu wa laa hada lakum sabiilahu liyaclama allaziina sadaqu wa yaclama al-kaadibiin fa axsinuhum kamaa axsana allaahu ilaykum wa caaduu acdaa'ahu wa jaahiduu fi llaahi haqqa jihaadihi هو اتباكم وسماكم المسلمين mbokk jullit yi ginnaaw bu ñu sant yàlla sunu borom subhanahu wa taala te xewalam yu mag yi ñu defal yu bari yu amul àpp yi julli ci sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam jaajëfal Seexna Seex Ahmadul Xadim mbokk yi ginnaaw loolu lépp tey jii noonu waxtaan ci tomb boo xam ni xutba bi ñoo ngi koy jënd ci boo xam ni daanaka koo junj lu bari ci suñuy xutba ak donte mosuñoo jaar ci digg bi waaye xutba bu ne bu ko dégg mën nga ko caa dégg boobu tomb mooy mooy xam sa bopp xam sa bopp xam sa bopp dafa di mbir moo xam ni. dafa yitteel ci ak jullit yitteel ci doomu aadama bu ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci wax dafa am wax bu siiw boo xam ni dañuy wax ne ab xadis la waaye li gën a wér mooy du ab xadis waaye boroom xam-xama ko wax waaye ñu ngi koy jëriñoo te buñ mën a jëriñoo la muy man arafa nafsahu arafa rabbah ku xam sa bopp xam yàlla lu bari nee nañ ab hadis la waaye ñu bari ñi gën a bari wedd nañ ko li gën a wér mooy du hadis waaye borom xam-xam a ko wax te nit mën na ca gis boppam te luñ mën a jëriñoo la man arafa nafsahu arafa rabba ko xam sa bopp xam yàlla ndax ci yàlla ci ci sa bopp ngay xamee yàlla li bëgg a wax na beneen boo xam ne moom moo ëpp ñu wax ni hadis la mooy man arafa nafsahu kaana li gayrihi araf wa man jahila nafsahu kaana bi gayrihi ajhal nee na koo xamante ne xamoo sa bopp réere nga sa bopp nee na loo dugg loola ngay gën a réere ku xam sa bopp loo dugg loola ngay gën a xam kon loolu di loo xam ni boroom xam-xam yi wax nañ ci yu bare bare bari ci xam sa bopp ndax ay réere sa bopp dafa di gàkk loolu moo tax boroom xam-xam ci wax boroom xam-xam di ci wax wax yu bari am na ko wax ni kafa bil mari jahlan an yajhala nafsa nee na doy na doy na réer sëkk ci nit ki mu réere boppam lu ak loo mën a xam lu mu bari bari boo réeree sa bopp dooy nag réer sëkk sëkk loolu foo foofa foofa la ko mën a yem kon réere sa bopp lu bañ la sa bopp lu ñu ŋàññi la sa bopp na ni nga ci xamee sa borom mooy boo xamee ni mbindeef la sàkkoo sa bopp créer sa bopp dañ laa sàkk sam xel la laaj ku la sàkk ginnaaw xam nga ni sàkkoo sa bopp sam xel dana laaj ku la sàkk allahu rabbul alamin rek nga mën a wax yow da ngaa doyadi da ngaa lompoñ da ngaa ñàkk kàttan te teewut nag li ngay dox li ngay li ngay def lépp mi ngi sotti waaw yaa ngi yëkkati say say tànk di dox yaa ngi xool yaa ngi wax te mu wóor la ni yooyu yëpp defaloo ko sa bopp som xel dana laaj ku la defal lii fokk nga xam ki la ko defal allahu rabbul alamin ba mu jeex loo top topp topp lu mu doon loo xool ci sa bopp ak ci li la wër loo ci xool gis sa yàlla loolu la boroom xam-xam ba wax ni fa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala ala annahu lwaaxidu lépp lu mu doon lu ne muy ci sa bopp muy li la wër muy lu mu doon loo xool rek gis sa lu la wan ne yàlla kenn la kon xam sa bopp ci sa xam xam ne yàlla ci sa bopp nga koy tàmbalee ci ngay xamee sa bopp boo xamee yooyu xam yàlla xam ni sa borom moo la sàkk xam ni yow la gën a fonk ci nit ñi ci ci mbindeef yi ndax doomu aadama la gën a fonk ci mbindeef yi xam ni daf laa taral ndax nee naa wala xad karram naa bani aadama damaa tax dama laa bind teral la fonk la jox leen mbopp mboolem xéwal yi teral la kon loolu li muy tekki mooy duutoo nangu ko la toroxal duutoo nangu ko la doya dem foofu la xam sa bopp di tàmbalee réere sa bopp nag mooy nangu toroxte nangu doya nangoo suufe nangu noteel nangu nangu nangu nangu nangu yooyu mooy réere sa bopp su fekkee xam nga sa bopp xam ni yàlla mi la bind moo la teral duutoo nangu ko la toroxal loolu nag daf noo dal nun réere sunu bopp danoo dal te dana am dafa am lu nu ko yóbbe ana lu nu ko yóbbe mooy noon bu yeewu noon bu yeewu jóge fa mu jóge tekkiwu fa dara amul dara fa mu dëkk dara amu fa mu ñëw fekk nun nu am lépp tey nelaw mu ñëw dugg ci seen biir benn benn yi tàmbalee yeewu moom muy ku yeewu teel a xam ni xeet wi ngir nga not leen ba mën a jariñoo li ñu yor fokk nga tàggale ne fokk nga tàggale leen ak ñii fekke nañ fi ay nit ñu am jom fekke nañ fi ay nit ñu rëy xel fekk nañ fi ay nit ñu mën a bañ fekk nañ fi diine joo xam ne day yeete ñu ne nag ñii ngir ñu jëriñoo leen fokk ñu tàggale leen ak yii soog leen a mën a jëriñoo muy colonialisme bi ñuy ñëw ñoom di ko France France a gën a ndóol si àdduna bokk na ci réew yi gënoon dal ndax amuñu dara ñoom ba tey li ñuy jële fii di ko jële ci Afrique di ko jële fépp saa suñ ko dakkaloon at yu néew ñu torox ndax dara amu léegi bi nga xamee ni nag ñun fekk nañ fi loo xam ni ngir ñu jariñoo ñu jariñoo suñu réew fokk ñu tàggale leen yoon ñu tàmbali ca loola tàmbalee ca déstabilité mag ñi kilifa yi ñu fekkoon buur ya nga xeex ak ñoom andi ngànnaay yoo xam ne ñoom amuñu ko bu dee ay fattali ma xadoom la ñu yoroon ak i yejaase xeej ak i ñoom ñu andi fi ay mitrailleuse andi fii fetal andi fii kënu jàkkaarloog ñoom téewul ñu jàkkaarloog ñu bañ di deewoo di deewoo di deewoo bi bu set ñu rey ci ñoom lu dul jeex ñu rey ca tubaab yi lu dul jeex te xëyee xëyaat di bañ rek di bañ ngir bañ ñu toroxal ngir ngir bañ ko loon nattee net ko leen nat ñu nekk ca loola benn benn yi nga xam nit ñi nga xam ni xam nañ ni bu ñu tafoo ci ñooñu duñ leen mënal dara ñu di leen ger di leen joxub dund di leen joxub xaalis di leen may leen di leen di leen favoriser di leen jàppale ci yéen ñi ne ba tàggale leen ak ñooñu tàggale ñi ci ëpp ak ñooñu ngir mën a am doole njëkke loolu ba toroxal la ëpp ci buur yi àdduna yi foofu ña ñañu rëyit ñu folli leen wëlbatiku ci sëriñ si wëlbatiku ci sëriñ si muy diine ji nga xam ne xam nañ day yee day yee day yee nit ñi wëlbatiku ci sëriñ si rey ñañ mën a rey Mouhamadou Lamine Dramé ak ñeneen ñu mel ne ñoom ñu bari lañ leen a rey jàpp ñu bari yóbbu Gabon Gabon sëriñ Tuubaa lañ fi mujjee yóbbu yóbbu nañ fa ñu bari ñoo xam ne kenn dellusiwu ci ñenn ñi dañuy yóbbu ci àllu Casamance bi nga xam ne booba bokkut ak booba moo Gabon yam booba bokkut ak léegi kenn gisatu leen ñenn ñi dañ leen a tëj ci kaso yi ba ñu dee ñenn ñi dañ leen a rey jaaran ñuy gis ci sëriñ lakk kàggu yi dem pir lakk kàggu ga dem dem dem dem dem dem dem dem kokke lakk kàddu ga kàggu ga dàq ñenn ñu dem Fuuta ba fa lañu ba fa la ñu faatoo déstabiliser kilifa yi toroxal leen toroxal leen ñu ci mën a toroxal ba yegg sa ci sëriñ bi fab ko yóbbu Gabon jéem koo rey fii lañ ko jéeme fii lañ ko jéeme fii lañ ko jéeme booleeki gaynde fii lañ ko booleeki nag fii lañ ko booleek lu ne ci ndar jii ak ndakaaru jii mënta sotti ñu ne ko tegg ci bato bi yóbbu gabon la ñu bëggoon bu setoon du leen jaral yóbbu gabon jël ko yóbbu gabon xam ni bu ñu ko bu ko bàyyee ci réew mi li bëgg duñu ko am yóbbu nañ ko fa juróom ñetti at yu manqué tuuti réew mi na nem mu nekk seeni loxo ñuy def liñ bëgg ñuy def liñ bëgg kenn néewut kenn neetul dara ñëpp ne nem ñuy def liñ bëgg def liñ bëgg ba def ci nit ñi liñ ci bëgg def boole ci loolu andi fi seeni école tasaare ko ci réew mi di neexal ñun nit ñi di ci dugg ngir jàngal leen seen culture jàngal leen seen aada jàngal leen seenu làkk fàttale woon noonu suñ culture fàttale fàttale woon sunu sunu làkk fàttale woon sunu bopp bañ ñu amee ci loolu juróom-ñetti at yi bi am ci géej gi lañ bëggoon lépp am nañu ko waaye sëriñ bi lañ ci bëggoon amuñ ko te ñu delloosi ko bañ ko delloosee lawoon gën a gë gën a gë keroog la keroog la waalo gën a aay mbooloo mi gën a riir la ñuy bañ gën a am ñu jëlati ko yóbbu gànnaar ngir defe ne nit ñu weex a fa ne mënu fa am muy am fii ba ñu demee nit ñu reex ñu gën a rakkaaju nit ñu ñuul na gouverneur ba fa nekk moo bind lettre gouverneur général ne ko kii nga fi andi jëlee ko fi ndax mi ngi tas réew mi loolu mooy sababu suñu jëlee ko gànnaar delloosi ko ci réew mi amatuñ feneen fu ñu ko yóbbu delloosi ko fi yóbbu ko jolof jolof foo bokk na ci fii gën a sori fi gën a naq ñàkk ndox ñu defee nit ña duñ fa dem nit ña riir wuti fa mu gën a mokk gën a nooy ñu génn ñu mujj nag ñu mujj nag ñoom seen bopp bi ñu defee seen seen ña waxtaan ñu ni li ci pexe li ci pexe borom xam-xam ñi saytaan yee ne leen li ci pexe mooy indi ko ci taax yi ndax àll bee ñu ko ber dana fa formé ay Ahmadou Bamba yu dul jeex yoo xam ne bis bu fi jógee ñoo fii ne bu ñu leen andee ci taax yii nag ñuy gis di dégg dugg ci biir nit ñi sëñ Abdou ma sa ko nettali bu boobaa bés bu dana fi jóge lu mu yàgg-yàgg bu fi jógee ah, ñu fi nekk xëy na bu ñu gisee alal yeeg nangam ak nangam bi dana dana am lu bari lu mu wàññi ci ñoom muy xalaat bu bon boo xam ni nañ ko bëggee woon réussir ko loolu waral ñu andi sëñ bi eh, loolu nag li bëgg a bokk yi mooy biñ demee ñoom ba xam ne nag liñ bëgg ci réew mi am nañ ko former seen i nit jàngal seen i nit former leen bàyyi leen fi lañu dem nag ndax li ñu fi nekk woon ci coona métti na waaye bañ demee ba xam ne am nañ li ñu bëgg la ñu dem bàyyi fi nag seen i nit léegi nag bi ñu demee nun réeral nañ ñu bopp sànq nañ ñu xamatuñ suñ bopp xamatuñ suñ culture xamatuñ suñ aada xamatuñ suñu làkk xamatuñ suñ dara xamatuñ suñ diine ñoom la ñu xam ñu nekkal leen fi léegi nun noonu noo wëlbatiku di coloniser coloniser suñ bopp colonialisme ba mu demee ak léegi 1960 kañ la lañ fi doon dundee ba tey noonu la réew mii dundee kon ñun ñoo leen fi nekkal lañ bëggoon si am nañ ko réeral nañ ñu fàttaloon nañ ñu suñ bopp ba xamatuñ suñ bopp ñoom lañ bëgg mbokk yi kon wëlbatiku jéem a xam suñu bopp dafa jot mbokk jàngal sa bopp jàngal sa bopp ci jàng say maam jàngal sa bopp ci jàng saw làkk jàngal sa bopp ci jàng sam réew jàngal sa bopp ci jàng sa diine boo ko defee la nga bëgg da nga ko am da nga dem feeg defoo ko doo dem aanal allahu wa iyaakum alhamdulillahi alladi asraqa anwaar alyaqiini yaqiini fi qulubi man shaa min al ibaad ونشهد أن لا إله إلا الله الكريم الجواد ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسوله الذي بنوره أضاءت الأغوار والأنجاد أما بعد فيا أيها الناس إن آيات كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم لا تزال تدلنا على أن الخير كله في الانقطاع إلى الله والإعراض عن كل ما سواه والمسارعة إلى ما ينال به رضاه ومن أفضل ذلك الصلاة فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ومن أجل ذلك تتابع المتقون الغدو والرواح إلى المساجد فحافظوا رحمكم الله على هذه الخيرات وعضوا بالنواجز قبل الفوات وعضوها بالنواجز قبل الفوات فتح الله لكل خير بصيرتنا وبصير وبصيرتكم wa tahara min kulli charrin sariratana wa sariratako wa sariratakum amin yaxfiru llahu lana wa lakum wa li saa'iri almuslimin